xamante ni mooy seen jeu euh, méga win euh, Daba Seye kontaan nañu lool euh, ci teewaay bi ci Midi Plus bi honneur aux ah <laughs> merci ñu ko ko boo amee boo amee diva bu mel ni moom <laughs> euh, danga koy danga koy tatagal jërëjëf voilà ñëpp ko fa merci beaucoup <laughs> ci mën a woy ki koy denc sax da koo faa jëkkër ji man mosuma gis loolu am sa jabar ba pare nekk président fan si club su ma ko bëggee sonal rek damay jékki-jékki woo ko ne ko moor kan moo dàq woy Sénégal mu ne ma da ngay laaj waaye moom dama sey fexe na ba euh, am reconnaissance su Sénégal yëpp mm. euh, mag comme ndaw ñëpp bëgg ko mm. barki Dembo Ndiaye bi nga xam ne ni euh, teaser bi commencé na génn euh, ci kenn naxu la photo yeeg vidéo yeeg Sénégal yëpp ci kontaan ba pare nga am benn constance boo xamante ni moo nekk ci yow dama sey ñu ngi lay nuyu. Mm. bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias. salaamaaleykum Pape Cheikh Diallo maa ngi leen nuyu di la bëggee. ñaawlekat bu mag bi <laughs> <laughs> di am mbégte bu baax. di kontaane sénégalais ak yëpp. Mm. di am mbégte tey partagé ak yow plateau Midi Plus. Mm-hmm. mbégte la bu mag ci man. di nuyu waa kër gi yëpp nag ci xale ba ci mag ñi ñëpp mhm. maa ngi nii ñëpp di am mbégte tey teew sama kër ah man kontaan naa man mi kontaan naa heure bi daan na la fekk ngay defar may nelaw ay ndékkee <laughs> yooyu noonu ah, waa gis nga ay defar ba baax ay yëf waaw mais fan yi amuloo benn temps ndax tournée promotionnelle waaw di di di lu metti loo xamante ni mm-hmm. yàgg nga ko dund mm-hmm. xam naa dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti euh, mais dama bëggoon euh, nuyu tamit euh, du Ndaw mm-hmm. yore jeu bi nga xamante ni mooy méga Win Orange jagleel ñu ko ngeen war ci bokk Euh, di euh, nekk millionnaire caabi oto baa ngi nii kër gi 10 million donc loolu yëpp ay loola wala ay teraanga yu orange jagleel ay kiliyaanam mais malheureusement indi indaale woo coupe bi quoi. mi ngi noonu <laughs> merci beaucoup grand donc namoon nañ la man maa doon séntu Qatar. mais gis ma la ma ne man maa ngi doon gis say vidéo quoi. waaw gis nga ñu ko di <laughs> waaw di ruube <laughs> ngay ruube rek waaw c'est un grand plaisir ah ñu ñëwaat fii ci plateau bi. Mhm. donc euh, di nuyu bu baax aussi la diva Daba Seye ah. jërëjëf merci moi bi. <laughs> jërëjëf donc. Euh, kon de xanaa grand théâtre bii di ñëw Orange mooy nekk sponsor. mooy mooy nekk sponsor mooy nekk sponsor officiel bi. incha allah donc on est très heureux ah ñëwaat fii mhm. waxtaanee le jeu Megawin bi nga xam ne sénégalais ñoo ko taamu. Mhm. te Pape Cheikh ren na ku nekk nekk xam na ni Sénégal quand gaynde yi mhm. nga xam ne Orange seen sponsor numéro dañoo mhm. demoon tamit jongante mbir mi mhm. malheureusement indaaluñ coupe bi mais yóbbu nañ ay clients yoo xam ni vraiment dund nañ expérience boo xam ne mosuñu ko am seen àdduna quoi. quand même parce que ku mel ne Adama Keita mi nga xam ne moo bokkoon ci jeu méga win bi mhm. demoon na Qatar man maa ko yóbbu woon mais mhm. vraiment mu dund fa expérience bu neex. Mhm. dem ci stade bi nekk ci place yi nga xam ni dafay jàkkaarloo gaynde yi. donc mu nekkoon une belle expérience boo xam ne itam. yamul woon ci or ci client méga win aussi. y avait d'autres services yoo xam dañoo lancer woon ay jeux dund expérience incontournable te loolu c'est grâce à Orange Megawin vraiment mi ngi delloo njukkal baax a baax suñu clients yi nga xam ne ñooy joué boobu tey mhm. euh, may wax nag ñi ngi ci décembre décembre nag ku xam décembre xam ni mooy mois gurolo Megawin bi te gurolo bi ku nekk xam ne ni c'est la villa Kalia donc caabi baa ngi ni mhm. muy une villa de deux cent soixante-cinq mètres carrés clé en main mhm. boo xam ni kër gi pare na euh, dinañ leen woon peut-être émission bi di ñëw vidéo yi ngeen gis kër gi li nekk ah. a scanner QR code bi nga ngi noonu <laughs> da dëkk ci biir sans problème et puis uh-huh. vraiment lépp ngi ci toutes les commodités uh-huh. ndaxte cité la boo xam ne am na piscine am na ay jardin y a tout dans dedans uh-huh. dans la cité donc Kalia ñëpp xam nañu que c'est le immobilier bi nga xam ne mooy defar kër yu rafet yi donc ku bëgg a bokk nag QR code bii ci écran bi moom ngay scanner ak sa téléphone portable wala nga def win au 22 722 donc na client yëpp scanner QR code bi daal mën a dugg allah fii quelques semaines. ñu tiré quatre chèques de million. waaye itam cette villa Kalia de deux cent soixante cinq mètres carrés clé voilà et puis ce qui est intéressant mën ngeen ko scanner nii ah au moment où ngeen di seetaan émission bi prenez vos euh, téléphones portables euh, ngeen scanner ko nii voilà ci écran bi rek. et puis immédiatement ngeen mën a bokk euh, ci Megawin bi alors li ci neex nag mooy Megawin moom jeexul. méga yi du jeex moom. day continuer day ngi préparé euh, bi ak yeneen xéw lu gën a yaatu. Uh-huh. donc parce que aussi xam nga ni moom méga yi moom ak sénégalais lu yàgg la. Uh-huh. te vraiment clients moo lañ tàmmu nag. parce que uh-huh. jeu la boo xam ne sa biir nekk ngay toog. di envoyé SMS. ñu la koy yónnee ngay tontu di gagné ay points. di gagné ay lots te luy ngay jot par orange money la koy envoyé. boo jotee 1 million ñu envoyé ko par orange money. te xam nga ma invité fii TFM. jox la benn chèque 1 million wala ma jox la caabi kër gi. te bokkul ak naar bi parce que bii ay question culture générale euh, question bi nga laaj ne léegi sax question bi nga laaj léegi. tuddee ko kenn kenn naqu la. ko boole ci question yi. question culture générale yu simple xam nga. voilà mi ngi vous d'argent gagné kër gi et puis maa ngi nuyu aussi Mamadou Wuri mi ñëwoon fii keroog nga xam ne moo gagné woon 10 millions bi donc dinañ ko ko jox inshallah normalement semaine bi jëm si ah joxaguñ ko ko ba tey non non parce que dañ ko doon invité pour yëgal clients yi ne kat mi gaa yi am la waaye dinañ dem ba këram Médina jox ko chèque de millions de francs CFA ak aussi 4 chèques de 1 mhm. waaye itam ñuy woowaat clients donc win au 22 7 22 WIN immédiatement vous recevez euh, question yi ci seen téléphone portable mën ngeen euh, scanner QR code bi ngeen di gis euh, ci suufu écran bi et puis voilà mën ngeen dem itam ci Turbo Zone Euh, foofu itam j'ai rencontré plein de gagnants yoo xamante ni fa la ñu jaar euh, ba ñii am 1 million ñii am 10 millions ñii gagné kër ñii gagné oto million millions bi euh, Mamadou Wuri mi ko gagné ñëw na fi semaine dernière et on ira le voir yóbbaaleel ko enveloppe am en attendant kër gi merci d'être passé nous voir Mamadou Daw et puis euh, à mardi prochain inchallah mardi prochain inchallah ak beneen millionnaire inchallah Orange moom war na mën a wax ni kenn naxu la voilà kenn naxu leen ñoom naxaat naxaatewuñu euh, ci seen euh, jeu bi bu ko defee nag euh, li ciy des mooy tàmbali waxtaan bi ak Daba Seye midi 38 mooy doog a jot démb bi ñu yëgee ni mooy nekk suñu invité defe naa ñëpp kontaan Daba Seye ku la tudd xel dem ci diva yu mag yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yàgg a bégal et puis li neex ci say mbir mooy muy traditionnel bi muy tradi moderne bi muy moderne bi. fu ñu la cuq rek mën nga faa way tey euh, bu doon euh, dañuy def bilan ci sa carrière mm. sànq maa ngi teg euh, bi may ibbi li nga way Siga Dieng xarit mm, mm-hmm. te pourtant amoon na album yu ko jiitu amoon na ay way yu ko jiitu carrière bi tàmbali na bien avant loolu mm. nga ànd ak ay artistes mm-hmm. ànd ak ay ndanaan yu mag ba léegi ngay def li xale yu tuddee maintien mm-hmm. ban bilan ngay def ci sa carrière Daba Seye waa Pape xanaa am mbégte rek nag ci sama bilan wu carrière parce que ci ay ténor laa jaar mhm. dama fi fekk ndaanaan yi dem tarbiyu leen mhm. awu leen am seen ñaan soog a beru mhm. xam nga boo jaaree ci ku mel ni Kumba Gawlu Seck mu nekk ndaanaan boo xamante ni ñu ngi koy ñaanal yàlla delloosi ko ci jàmm. amiin euh, jaar ci ku mel ni Kiné Lam jaar ci ku mel ni Thione Seck. Assane Mbuub Assane Ndiaye. fallu Dieng. Mame Goor Diazaka. Salam Diallo Secka Pape Diouf. juuf ah, loolu defe naa carrière bu set la. mais finalement tàmbali carrière yombul ah. parce que jaar yëpp. boobu gën nga nekk xale. xale boobu nekk nga jigéen. waaw euh, ku ne xam na ni aar d'habitude ñu bëri. du ñu bëgg seen doom dugg ci ba pare yombul. mais terewul ngay trimé rek di ànd ak. waaw di ànd ak ndaanaan yooyu rek. Mhm. man nag bi ma ciy dugg ni ma ci duggee moo tax xam naa ni yàlla yombaloon ma bunt yooy yëpp. Mhm. parce que boobu ñeewante sama waajur bu jigéen. Mhm. moo ma ci duggaloon Euh, donte dama ko donn sax nag mhm. waaye boobu gis naa ni am na lu nekk ci man mhm. waaye mënuma jug rek def ko mhm. faaw ma am fu ma jaar ci laa dem seeti ku mel ni Salam Diallo seeti yaayam la dégg ni ko dama bëgg aw salaam mu woo salaam ni ko jël ko tey sama jaam la sama sang la kon boobu defoo defoo li xale yi def ay taxawaale ci ay boîte déedéet dem di xaar artiste ak musuma ko def ay kilifa dama dem ci ay kilifa dugg jaar ci yoon boobu salaam a ngi nekk topp Sénégal ma dem usine dem seet yaayam maa ngi koy fekk muy julli ma ñëw ne ko salaamaaleykum man la doomu mbañik mbuub mhm. mu ne ma yow de yaay sama sang ñëw ma ne ko salaam laa bëggoon a gis parce que dama ko bëgg aw mu ne ma da ngay woy ma ne ko awkat laa bëgg a nekk <laughs> woyaguma mu woo salaam boobu salaam ay dëkk Nord Foire mhm. ne ko kii moom danga koy jël tey mhm. salaam ni ma commencé si tey ma daal di koy fekk boobu mu ngi tëgg defe naa ni Madison ma dem nekk awkatu salaam te boobu boor yooyu yëpp xamoo fa woon ay boîte de nuit xaw ma fa fenn xamuloo luy boîte premier jour ba ma fay dem Pape Aline la ma booleel <laughs> manager am euh. ni ko demal jëli ko euh. Pape Aline ñëw jël si ma mm-hmm. parce que boobu xaw ma fan la Madison nekk mm-hmm. Mm-hmm. indi ma ma commencé awu noonu noonu noonu par la suite ma dem benn xew tamit te sa faak yaayu Kumba Gawlo mu daal ni ma kaay ma ñëw mu ni ma noo tudd Fatou Seye Mbaye ma ne ko Daba Seye mooy dangaa niroog sama doom ji ca mën a woy <laughs> uh-huh. danaa la booleeg moom nga koy aw def deux jours boole maa kumba uh-huh. noonu laa defee ay étape ay étape ba agsi ci ténor yu mag yi macha allah macha allah mm-hmm. mais est na période boobu noonu yombul que nga nekk xale mm-hmm. euh, nga nekk ak say waajur mm-hmm. jigéen ku ne xam ni géwél day teel a sëy waaw da ngay teel a jaboot dëgg la da ngay teel a nekk soutien de famille waaw mais terewul rek nga am passion bi yombul ko rek maam ko rek dama njëkk def dama njëkk def benn makket yóbbul ko tonton Kabou Gueye uh-huh. fekk ma jël numéro woo ko uh-huh. dama leen ni boobu mës naa ñëw fii mu ngi tudd jooloo li yàgg na yàgg na ma jël numéro tonton Kabou Gueye woo ko mu ni ma am nga maquette ma ne ko luy maquette mu ni ma kon ko goo ma daal dem ci Matar Ndiaye boobu mi ngi ànd ak Fat Lawbe uh-huh. dem këram ni ko tonton Kabou Gueye dama ko laaj mu ni ma defal maquette mu ni ma kaay ma jàppale la nga def maquette ma def maquette sonn ci maquette bi ñëw indil ko ko mu ni ma baaxul man ko tonton Ka bu baax mu ni ma déedéet damaa nga wuti ñoo awu mhm. boo amee ñoo aw ba am foo jaar ba pare mhm. après boo ñëwee ma soog laa jàppale mhm. tonton Kabou Gueye maa ngi koy nuyu tey loolu am na jom di mu def ci man ndax nga defar ba yaakaar ni baax na nga ñëw ci ka xam mu ni la baaxul loolu day yokk xam-xam ma daal dellu ak samay jooy dellu daal ni mataan nee na maquette bi baaxul mu ne ma waa góorgóorlu rek Matar Ndiaye mu tamit maa ngi koy nuyu ma daal dem nekkaat nag di aw nag ñoom sekkaa lëmbalu naar ah. mu jël si ma ni ma kañ nga aw lëmbalu naar hmm. ma dem aw lëmbalu naar aw ci lu neex waaw mu mu xaw mu am succès nag waaw trop sax ma daal di dégg naa la <laughs> ci ci lëmbalu naar ma ne ah kon ñu may xam boobu lëmbalu naar xew na mhm. Secka ma ni Secka aw bi nice na de léegi fooy dem woo woo ma xam nga rek boo bëggee mbir mhm. donc noonu daal laa nekke paap nekke noonu nekk noonu mais mhm. rëccu ma ci dara tey wallaay doo ko rëccu waaw rëccu ma ci dara parce que parce que yéen seen début moo gën a metti euh, léegi waaw xale yi léegi wala artiste léegi euh, dañoo ñëw fekk lépp pare lépp pare am nañu ay internet ak ñoom seen mais yéen bu pour nga am woy wu jàll ci rajo sax. problème la problème bu rëy la. problème bu rëy sama premier album bi mu génnee. Mhm. dama ñëw duma ko fàtte boobu Kumba Gawlo mi ngi dëkk si presse. Mhm. ma ñëw ni ko dafa ñëw si doo déglu si morceau bi ma ko woy mooy mooy sëñ Fallou. Ah. ma ne ko dama rendre hommage. Mhm. mu jugee këram ñëw studio 2000. Ousseynou Ndoye ñu may seetaan ñëw déglu morso bi. kontaan ni ma kontaan naa trop léegi da nga koy jël yóbbu ko ci rajo yi. ci laa jël nag ndeysaan jël rajo bu nekk ma dem fa ni la woykat bu bees laa. dama bëgg nga may teg te mën a manager maay demal sama bopp. <laughs> su ma jigee banlieue dugg ci clando yi xam nga daw. yóbbu ko fii yóbbu ko fii yóbbu ko fii ku nekk ma jël sa numéro nag woo la yaa ngi may teg mu ne ma maa ngi lay teg yaa ngi koy dégg ma ne ah dégg gu ma dara mais xam nga loolu lépp jaar-jaar la te tey jii am na lu bari lu ma servir mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moo la jëriñ ba tey euh, kenn du la nax ci musique déedéet loolu moo la jëriñ ba kenn du la nax ci spectacle non non non loolu moo la jëriñ maa ngi koy wax bari ki démb nii mm-hmm. euh, fexe nga ba mm. loo ñàkk génnee ñàkk génne lu bees mm-hmm. tout temps yaa ngi ci soirée de gala yi mm-hmm. tout le temps yaa ngi Amérique mm-hmm. tout temps yaa ngi ci soirée New York yi tout le temps yaa ngi ci soirée euh, euh, soirée soirée yi di béggal sénégalais yi yaa ngi ci jàkkaarloo yi tey ku fi xew euh, xeeboo sax ñiy ngénte xeeboo ñiy mariage maanaam passion boobu nga xamee ni am nga ko ba nga génne lu bees ak ñàkk génne lu bees du tere ngay béggal sénégalais yi lan mooy secret Daba Seye xam nga boo amee carrière solo Pape nekk ci carrière. ca gëm ko. da ngay gëm ni rek am na étape boo weesu bu gën a metti bi nga nekk ni parce que li jafe mooy ñu xam la. xam tur bi. nangu la li ngay def xam yaay kan te loolu bu yàlla dogalee mu am li ci des yow yaay yaay yaay yaay gëm sa bopp nekk ci boo gisee même bu ma génnewul lu bees sax nit ñi dañ may consommer parce que mariage yooyu lépp aar la mhm. defuma ko ci defin bu doyadi. Mhm. bu ma koy def dañuy jël bâché ba mu rafet. Mhm. décoré ba mu rafet fay ma lu bëri. Mhm. fay ma di ma may. parce que bu weesoo artiste bi nga nekk nag. géwél pire ab géwél laa. te nag dafa ànd ak xam nga jamono changé léegi jamono soppeeku artiste xaw waaw euh, moderne et tout ça. mais uh-huh. géwél pire. moo daan way wallaay mooy taxaw géew. te yow sa carrière terewula. Euh, non respecté. réglu géwél bi nga doon. bi ma doon réglu géwél bi ma doon may na ma lu bari mhm. yóbbu na ma lu fu bëri. Mhm. xamele na ma nit ñu bëri. Mhm. ndax woy tagge te damaa fexe ba maîtriser ko. su ma neexee dama lay tagg ba nga sa yaram daw. nga may fay di ma may. Ah, waaw waaw ca loolu dafa am solo. te woy may ca way may. <laughs> mais tagg yomb na wala yombul. waa tagg nag yombul xam nga nga jël nit. bëgg a dugg fa mu sosoo ñi mu bokkal ak ni nga xamante ni noonu la juddoo loolu maîtrise la laaj waaw loolu ak jàng ba mook parce que nit ñi dañoo foog ni géwél day wax rek déedéet géwél war wax loolu da ko war a maîtriser nga gis ñaar ñu sant jëng waaw ca bokk ñu tagg te bokk non seulement duñu bokk tagg waaw waaye duñu bokk sax duñu bokk sax waaso bi lay tëgg la loolu dafa am moo tax koy woy rek gëstul ay maamam xam ko jàng ko mhm. dafa am solo trop parce que souvent nit yi Euh, di nga ci gis. Mhm. ñu xamul àddina. waaw nit ñi daal dañ leen di may rek. dañ leen di may rek dañuy fàtte ni. waaw rôle bi. géwél bi joué waaw dañ ko fàtte moo sax rôle bi. Mm, géer bi géer gi joué mooy lu am solo nga wax léegi da nga da ngay gis ñaan ñu sant Dieng. Mhm. te ñu waaso. waaw bokkuñu fu ñu bokk. nga gis ñaan ñu sant Dieng bokk waaso te bokkuñu tagg. dëgg kii dafa dëkk Njiñeen kii dëkk Kër Moussa Buri Degen. Mhm. donc ñaari mbir la yu bokkul. donc leneen li mooy dañuy fàtte rôle géwél di xool li ñuy may géwal rek te du ñu xam ni géwal dafa bokk ci aadama. alors que géwal bi. Mhm. xam-xam rek la. xam-xam rek la xam-xam rek la géwal xam la xam ni kii sama juddu la. Mhm. nga li li fi maam yi bàyyi woon. Mhm. nga koy wéyal di ko wax. muy am lu mu yëg dafa am solo. waaw moom laa jàng. <laughs> saa yoo ko defee mu neex pour pour ñu dellu ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti. Euh, ci sa ay début. bi nga xamee ni nag euh, vraiment carrière bi commencé na exploser est-ce que yomboon na jamono yooyu lan. nga ci jot a dund ci ay mbir yoo xamante ni à un moment donné tu te dis. man de bu démb doon tey. Mhm. dama dugg ci aar. waaw xam nga aar nag moom toujours ay surprise rek nga ci am. Mhm. mën nga ci am tey mu neex. Mhm. suba nga am ci mbir moo xamante ni li nga ciy dund yow rek yaa koy xam. mais xam nga ngëm-ngëm rek moo am solo pap ak li nga bëgg. def ko muy sa passion. dafa am solo. ci nga wéy di ko di di ci nekk ci buy neex. ak ci buy naqari. man ma ci duggee léegi. ba ma ci des fois nag ma jànkonteel ci mhm. ak loo xamante ni mais surtout période boobu nga xam ni amoon expérience comme expérience bi nga am ni mhm. nekk xale euh, yore njaboot di toppatoo sa ay waajur et mhm. tout ça euh, période boobu neexul woon aussi à cent pour cent waaw neex munul neex parce que xam nga boobu yow kese la amoo ku la jàppale sa sa loxo jotul sa ginnaaw sa sa sa sa baat li muy neex neex neex am na foo xam ne mënagu fa àgg. Mhm, mhm. wala boog sa tànk jotewu fa. Mhm. loolu day metti bunt yi war a ubbeeku yëpp ubbeekoogul. loolu coono la woon. waa coono la woon nga bëgg a faj. mënoo faj wala mu wér la ni ah man ñu ma xam nii. mais lii jariñagu ma dara moo dëgër ba continuer. waaw parce que boobu gëm naa ni ñi ma jaar nii li ma liggéey ak ñoom. suba mën naa def comme ñoom. mën naa mel comme ñoom. man loolu rek moo ma moo ma ci téye ba nag waaw loolu moo ma motivé woon mel naa ni ñoom waaw wala boog maa ngi jéem a mel ñoom parce que ay ndaanaan lañu <laughs> li ci des nag mooy mm. ñu waxtaane lii mm-hmm. génne nga ay album yu bëri mm-hmm. euh, def nga ay clip yu bëri mm-hmm. euh, def nga ay spectacle yu bëri mais à partir de quel moment nag tu t'es dit mm. c'est parti pour que vraiment nga dëgëral nga dëgëral mm. carrière solo bi waaw loolu maa ngi ko yëg ma xool 2006 laa génn 2006 2007 2009 laa laa teg sama groupe. Mhm. tudde ko Mam Fallou. Mam waaw. Mhm. parce que boobu gis naa ni tarbiyu naa. Mhm. ñi ma jaar ay ndaanaan lañu. te ñoom ku ci nekk fex naa ba nga dëkk la loxo nga ñaanal ma. xaaral nag ma ber sama daara. bi ma ko bereeg léegi tamit ah. Pape alhamdulilah macha waaw sant naa. yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi liggéey bu baax ak ak groupe bi en fait. waaw maa ngi liggéey bu baax ak groupe bi ak sama borom kër Mor Mané. Mhm. sama li may gis nii nag moom. Mhm. xam nga dama nelaw rek mooy sama àdduna. <laughs> dama damay jékki-jékki rek Mor ni ma yee daba lii la ñu war a def. <laughs> donc amul lenn loo xamante ni rek. lu may lu may lu may lijjandil sama bopp la lépp mhm. moo koy dox moo koy lijjanti woo ma ne ma lii lañ war a def ma daal di jóg def loolu parce que xam na man woy rek lañ ma sant avant ngay am mormaane kon kon kon may am mormaane de fu ne seeti naa xam nga euh, DJ Saw dem naa mu manager ma mm-hmm. parce que boobu maa ngi commencé comprendre nag ni ndakati affaire yow artiste bi mënoo koo dox faaw nga am ku la koy doxal. faaw nga am ku la ci jàppale. ma jógee ci saw Karim. Mm-hmm. amul sama temps parce que moom ma ngay animé. waaw. waaw yenn saa yi mu jàppale ma. Uh-huh. ba yàgg ma daw ca Pape Assane Seck Pape Assane Seck ndeysaan di lijjanti playback yi di lijjanti yenn yi ba ci yàgg ma ne man daal bëri projet projet mi ngi noonu ci la ma yàlla booleeg Mor Mané nag uh-huh, uh-huh. waaye boobaa tey Pape uh-huh. damay nelaw ba yeewu rek lii nga war a def waaye léegi yow bëgg a xam ndax Mor hmm. ci ci ci ci ci ci mbëggeel ak bëggante ngeen xamante wala ci management bi <laughs> loolu histoire la waaw histoire la boo xamante ni bëgg naa nga nettali ma ko <laughs> yàgg Mor leen boole musique leen boole ah. wala bëggee la leen boole il faut mu leer sama si sama bopp. Mor daal dara ñëw di baal si salaam parce que Mor <laughs> Mor ñëwul Sénégal mais ñëw lang ñëw daal benn waay la bu daal ñëw di seet si salaam Diallo di ñëw baal si salaam. benn bés ma ni salaam. ñu jee ba pare ma ne ko salaam man maa ngi ñibbi mu ne ma yaay booy tey dama mhm. la yóbbu Bantia. ñu ne xam nga Bantia. xam naa Bantia waaw ñu ñëw Bantia. ñu gaare man ak salaam ak sama benn xarit bu ñuy wax jooju jong. Mhm. rek salaam ni Mor maa ne sa woykat baa ngi nii chaque jour nga rey ma kii aw kii aw. tekk fan si la woon. paab ñu yéeg si toog. Mm. moo ni ma soxna si woy ma. ma nga dafa bëri tiitar. <laughs> ma woy ko mu ni ma loo lekk maa koy fay. ma ne ah waaw. ma lekk ba pare ñuy raxasu mu denk ma téléphone am. ak a bi ma denkee téléphone ma daal di jël sama numéro def ci biir téléphone bi. waxoo dëgg bilaay lii de laa def man mi maa def loolu. bi ma defee loolu ba pare. sama yaram baa ngi daal gis moom rek bari non boobu comme fan si la rek. waaw ma daal di jël sama numéro def ci téléphone bi. ñu génn ci fi ñu lekkee moom mu woo ma ma ne ko merci beaucoup kontaan naa li ma fayal ak sama xarit bi. Mhm. kontaan naa mu numéro mais moom tamit doful moom mi la jox portable. gis nga bandi la <laughs> waaw gis nga. <laughs> loolu code la. <laughs> code la léegi nag ñuy wax jour boobu di wax ba 6 heures du matin. Mhm. sama crédit jeex mu may woo di ma woo ba oh, midi. début waaw gis nga. ni laa xamante ak moor mu nekk waaju baax a baax a baax a baax ndeysaan Cheikh ci yàlla na ko yàlla yërëm mës nañu invité Mermoz ñu dem toog mu ni ma nu ngeen xamante ma expliqué ko li mu ni ma mu ni ma yow mi yaa ko nopp yaa ko nopp wallaay ni ma ndax yow waaju jël dénk la téléphone am di fans ma jël sama téléphone rek dugal si <laughs> moom it kenn raw ko mu may woo ba si ba six heures du matin crédit ba jeex ma koy woo ba midi crédit ba jeex ñuy wootante woote ma soxna si maa ngi te tëdd nelaw ba suba mu xëy daan ni ma ci ngoon si yee ma mm-hmm. daan ma waa ah suñu waxtaan démb moom neexoon na man daal kontaan na yow woykat nga ndaanaan nga salaam sama xarit la mais lu ci ëpp yaa ma fi indi nii laa xamante ak moom ba yàlla dogal ba yàlla dogal njaboot waaw <laughs> Mor Mané nekk manager. daal di nekk manager nag macha allah nekk manager. Mm-hmm. fekke ma ci cachet wu quinze mille francs. Mm-hmm. pap yóbbu la indi ma ci ay million waaw bi may xam. Mm-hmm. boobu boo ma woowee ci quinze mille sax ma jug. parce que li may def bëgg naa ko. xamaguma lan la. du ma bëgg la rek di ko def. mu ni ma soxna si. dama lay tere ñaari mbir da ngay bàyyi aw bi quinze mille yi mën naa defee jële yóbbu la ci lu ko ëpp. moom dafa am fu ma jële am fu ma indi moo tax barki démb Ndiaye bi coow li bëree ci mhm. euh, sa xewu doom bi mhm. sénégalais bu ne di waxee boor mhm. ñun ñi xam ak ñi xam dañu ne pat noppi te xam ni xam nañu wallaay xam nañu yow yaa xam fi nga jaar fi ma jaar ak moom yaa xam li nga ko ji moom moo xam li nga ko ji moo xam li dafa am lu ñu ànde man ak moom loo xamante ni bëgg naa tamit nit ñi di ci bàyyi xel yenn saa yi nga dégg ni kii dafa ànd ak ndaw si parce lii parce que lii fekk na moom moo dimbali ndaw si Daba Seye benn artiste parce que ñun dof yi mhm. ñun dañuy xool rek nañuy xool rek dégg rek ni damm na moor moom topp na waykat bii de waykat bi lu mu jox ko na ay waay xaalisu waykat bi waykat bi lii waykat bi laa intérêt la ko toppee nit la ku soxlawul sama dara leeralal sama classe gi nga xamante ni xamuñu dañuy yëtër yëtër yi ba pare bari wax ba pare bari wax teg Pape man doomi géwal laa hmm. sama yaay mooy sama bàjjen. Hmm. bette bette géwal piir laa. xam naa ci dara. wallaay dëkk hmm. njiñee nag jaaj ak sugeer. débb say albañik nga. amul dara lu nit kaas bi sax boo ko fëlee xam naa li tax nga fël ko. Hmm. du ma ànd ak ku may nax. moor daf ma jàppale. xam nga nekkuma ko bari wax fu ma toog moor moor parce que moor dafa am lu mu def ci man dafa am fu ma jëlee am fu ma indi. loolu nag man man ñi ko xam. doy na ma. parce que man la nekkal ca loolu man neex na ma. nax bi neex na ma di nax nit di ko jële Sénégal di ko génne bi bitim réew mm-hmm. di nax nit di ko jële Sénégal génne buy ànd ak teraanga nag mm-hmm. di nax nit di ko jële Sénégal di ko yóbbu Amérique mm-hmm. di nax nit fexe muy am kër këru boppam di nax nit di fexe mu yóbbu ndeyam màkka mhm. yor ndeyam mhm. loolu boobu nax waaw man boobu boobu nax neex na ma ndax boobu neex waaw nax boobu bëgg naa <laughs> mais saa mhm. euh, ci ci ci ci Daba Sey euh, ci Mor Mané ndax euh, ku lu yàgg ci diw niin waaw ku ànd ak ndaanaan doon ndaanaan doon ndaanaan waaw lan la leen di def yéen ñaar bu ngeen toogee ba di ko waxtaane ba gis polémique yeeg coow yeeg ku ne di waxee boor moom nag dafa am benn référence bu may jox. Mhm. daf naan Youssou Ndour bi muy woy foo ne. dëgg la. li Youssou Ndour di dégg ci réew mi. dëgg la te doo ko dégg mu wax amal xolu muñ defal ko mu Youssou Ndour na la doy référence góor la mais def ko référence. boobu wax la may wax. daf naan ma daba sénégalais yi fii nga dëkk fii nga juddoo. Mhm. mais wax ji yow yaataan tànn nekk artiste. Mhm. fa wax ji am. mais jëlal kenn nga def ko référence. mu Youssou Ndour lu ne lañ koy wax. Mhm. lu ne lay dégg am mhm. njabootam am soxnaam am mhm. fameem. mais mosoo ko dégg mu wax. en tout cas dégg naa ko benn jour mu wax ni. fa ma jaar. xale bu fa jaar takk bat. te it jaar nga fu ne. jaar naa fu ne. ci jigéen waaw. <laughs> da ngay toog ñun ñu jël pause. tey Daba Seye fii la yendu. Euh, <laughs> euh, di bégal téléspectateurs yi yéen. Mhm. ak euh, internautes yu télévision Futur Média midi 57. Mhm. mooy doog a jot daañu waxtaanee lii kenn naxu la moom nag boobu ba tey naxuñu moo tax tey mu defal ñu honneur ñëw ci télévision Futur Média. Mhm. télé bu mag bi pour ñu waxtaanee projet yi waxtaanee single bi waxtaanee itam tournée yi nga xamante ni mu ngi koy préparé fii léegi décembre. ma bëggoon ñu jàll ci publicité yi en attendant Chérif Diadi toog pour présenter ñu journal bi itam mu ngi préparé wu pour wax ñu li xew euh, biir internet en attendant ñuy àggali waxtaan bi ak euh, Daba Seye mm-hmm.